Uh, bikum weesu nañu téeméer dépassé nañu ko Sénégal a ngi ci téeméer ak juróomi doomu aadama yu am jàngoroy coronavirus gi allah libération mooñu ko xamal démb ci alxamis ji fa yokk juróom benn nit juróom ñi fañ ñu koo handil bitim réew lañ bàyyeekoo kenn ki fañ ko ko wàll yéene kaay bi ne ci juróom benn fan juróom fukki doomu aadama ak juróom ñett xam nañ jàngoro ji l'observateur na ko wàllaate gi fi mu toll nii fa jéggi dayo waaye waa kër docteur nag li leen jaaxal mooy ñii bàyyeekoo bitim réew dugal ko fi fi mu toll ni fa bëri a yow seetal téeméer ak juróom ñeen fukki sénégalais dellu si nañ ci réew mi ci xanam guñ xamut te xam nga ne loolu fa dansé xam na ca ñoom juróom benn xale loolu lépp nag ci benn ay bés la ñeent fukk ak ñett ay tubaab américain ña ngi leen ber ca Lagos fukki sénégalais ak juróom benn ña ngi leen tëj ràpp ca réewum Togo 24 heures yéene kaay ne coronavirus gi kay fi mu toll nii génn sax sa buntu kër risque la wóoratut ndax kan moo la koy yow xamoo ko la mu xam ba wax ñu ko nag moom laa laas yéene kaay mooy coronavirus gis nañ garab gu baax ci moom ni waa kinin moom la ñuy fajee léegi corona bi enquête yéene kaay na ko adduna bi yëpp chloroquine boobu ñuy wax ni waa kin moom lañ am yaakaar professeur Seydi bu hôpital bu Fann ne ñun de moom lañ fajee suñ malade yi te ñu ngi tane xam nañ juróom-ñeent ñu tane te kenn deewagut ci sant yàlla le soleil yéene kaay ne kon nag leer na léegi ni waa kinin mooy faj corona bi docteur ba dëkk France nag raawut ma ko fi waxoon ne mën na ko faj moom moom lay fajee am ñu bëri ñu daloon ci kawam di ko attaqué tey nag yey na leen professeur Seydi na ko li tax ñu war koo mën a faje mooy ne xamuñ beneen garab bu bees bu mën a faj korona te ni waa kinin bi mi ngi tanal ñoo xam ne fañoo ñoo feebaroon loolu kay doy na les éco yéene kaay na ko moo taxit kilifa yi Sénégal fi mu toll nii d'accord nañ santaane joxe ndigal ci ni waa kinin bi ñu fajee ko réewum France tamit def na loolu ak réew yu bëri ci àdduna bi ndax ko xamul nday fa ngay nàmp maam professeur Daouda Ndiaye moom mi fi taxawoon weddi ne ni waa kinin bii mënta faj ak àndu ceeg wax yu kenn xamul tey wax na ko xàtt ndax ñi ci internet bi ñi ngi ko yàq lu mel ni xeme xamul dara lam doon wax xamul ci dara tey mu ngi nii daanu na kon xamatul wax na noppi te mooy yéene kaay ne ni waa kirin kay fa fayu ayaw seetal 2013 lañ ko kajoon dàq moom ni waa kirin kenn soxlaatut ko ne bu ko kenn fajeeti ndax mënatu dara waaye tey jii àdduna bi yëpp ñu ngi koy wër moom ni waa kirin Sénégal kër gi doon defar ni waa kirin sax fa tëjoon ndax ay problème docteur Assane Diop njiitu pharmacien yi ci Sénégal ne waaye na seen xel dal ñun Sénégal li am ci ni waa kirin mën naa faj ñu yor jàngoro corona gi maanaam xapp ak lakkang fi du populi na ko hee defal ndànk ni waa Kineen amatu ci dëkk bi di lépp nguur gi jënd na ko fa koo ramaas jox ko docteur yi ngir ñu faje ko la le quotidien dëggal ko ne nguur gi jënd na lépp ñuy jënd gel nag nañ moytu ndax xam na ñoo xam ne fa ñuy defar gel yoo xam ne baaxut ba pare di ko jaay source a yi ne kaay nee na am na juróomi commerçant ñoom teg nañ leen loxo ña ngi ca kaso ga ndax gel bañ den jaay baaxut li baax te njiit réew Macky Sall def ko mooy ñaari ak fanweer ak juróom benn doomu aadama yuñ tëjoon kaso baal na leen ci feetu 4 bi le quotidien yéen a kaay ñi ko xamal waaye lim bi lool yàlla coronavirus gi ndax fa ñuy bañ ñu nekk ci kaso gi tàncaloo su fa jàngoro ji duggee xay xam waa grand place yéen kaay na ko Macky defaat na leneen lu baax ayaw seetal juróom fukki milliards ak ñeent moom la génnee ngir dimbalee ko collectivité territoriales yi gox ak gox goxaat yi ngir xeex coronavirus gi l'évidence yéen kaay na ko am na keneen ku def lu baax ci xeex jàngoroy coronavirus gi ca Kaolack ndangaan Mohamed Ndiaye Rahma homme d'affaires opérateur économique démbu daal diiwaanu Kaolack waxuma commune ba de waaye fukki commune ak ñeent ten ya jox leen dimbal naka noon préfet yi nekk ci diwaanu Kaolack gouverneur ceeb bu bari ordre sawel bu bari saabu bu bari ak saabu ndox ak satala maxsel lim bu bari ba jéggi dayo moom la séddale démb l'évidence yéen a kaay da yemut fa moom Mouhamed Ndiaye Rahma yëkkati na kàddu woo homme d'affaires yi ci Sénégal ne liñ dajale ngir dimbale ko état bi matu sax benn milliard nee na loolu dafa ruslu mi leen di woo na ñu dem seen banque yi yokk liñ joxe woon ci gàttal daal nee na yu bari dimbale ko Sénégalais yi ndax liñ joxe woon a kaay di ñu xamal ne yu Kaolack ndangaan ñoom it jël nañu ñaari million jënd ko ay matériel jox ko gouverneur ba coopératif ba collectif ba ak wa assis ño xamal li ni mel Omar Thiam wax ci seen kaddu loolu baax na li baax ci réewu Afrique gi nag mooy bor biñ yoral tuba bi ñu baxal leen ko fomp ko bam set ndax coronavirus gi fa andi galang seen kom kom li mooy bëgg-bëgg ak càkkutee fu njiit réew Macky Sall bam wax ko tubaab ya si du quotidien nee tuba bi ya tontu nañ ko banque mondiale ak FMI nee ko waxtu wi ngeen doon fay yeen réewu Afrique yi mën nañ ko toxal waaye baaluñ leen de fa ngeen di fay l'évidence yene kay nako pourtant man non de banque mondiale ak FMI lañ wax mooy li Macky soxla noonu pour ñu baxal leen ñoom réewu Afrique yi seen bor yi xel nangu na ko te mën naa am dinañ ko def turbine yéen a kaay moom ma ngay nettali li tax tubaab yi war a jéggal réewu Afrique seen bor bi a yow seetal juróom fukki réew ak ñeent woyofal nañ leen seen bor bi Sénégal ci la bokk kon ñu ngi am yaakaar tubaab yi jéggal leen l'évidence yéen a kaay di ñu xamal na njiit réew Macky Sall dalal na démbu ca pale ba Souleymane Ndéné Ndiaye Hadjibou Soumaré Landing Savané Abdoul Mbaye bi fi nekkoon jiiti jëwri ni moom fa ba tëdd naaj wa demul ca pale ba wuy ji Macky yéen a kaay bi na neexul ba neexul waaye coronavirus dajale na ñoo xam ne duñ daan laale ma laa record yéen a kaay fekk fa Sadio Mané këru taskatu xibaar ya nekk Angleterre moom lañ tànn na mooy footballkat bi gën a xarañ meilleur joueur ci atum ren bi stade yéen a kaay feelu ko na ko Kalidou Koulibaly Manchester United ma ngay nas ay pexe ngir jënd ko kay nas ay pexe ngir nekk mbër bu njëkk bu dëkk Pikine mbuqi Modou Lo du kenn ku may Ama Baldé loolu da la bëgg ngir fayul Eumeu Sène tuuti Modou Lo ray ko de sunu lamb yéen a kaay ba nekk réew Mali la Cissé këf nañ ko sàcc yóbbu ko Allah ba pare garde kooram ba ñu daal di koy faat rey ko ba tax Idrissa Seck ma ngay wane ak jàppaleem la Cissé mi nga xam ne kenn xamul fu mu nekk